nee na doomam bi nag doomam bii doom ñu doomoo ko mu bàyyoo leen su ma waxee loolu dafa am lu muy wund man ngaa jur doom te doo ko jur non nee na loot bu ko yàlla waxee ne lay si man ali ahlika doonul sa doom moo ko jur waaye position yi ñoo bokkul kii nag dafa di seen dom jo xamne seen position la japp ndax baye sari Moustapha Bassirou non da ay xale lañu waye amna lu mu seede ak lu mu daan doxal ak serigne Mansour booba nekkagul khalif général daana fa ñew ñuy gis fonk gu mu ko fonk ak tranga yu dox seen digënté lolu amna ci lo xamne kenn ko noo ko gis kon moom bu ñëwee fii di doxal loola di dundal loola def na la nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko dénkaane dani wa min abar birri an yusil rajulu ahla wudi abi yow day sañoo yi bàyyi sa xarit yi mbaa sa mbokki bàyyi ña sa bàyyi nekkoloon doon jonjanteeg ñoom bokk na ci liy baaxal mbaax li gën ci li gën nit di jokk loola loolu nag moom ca la sëñ Mbàkke Madina nekk nee bëggunoo guddal ci seen kanam daf di service rek bu ñu ni jox ndax <laughs> nee na alaaji Malick maamam nee na sa sëriñ daal boo toogee moom bul baril wax de doonte moom ma ngay wax ndax xurma waaye lii nag day loo xam ne dafa jóge ci yow jëm ci yow jaar ci nu rek te it lott nanu nag wax lépp ba mu mat nee nag ñu ngi ciy profité nag nee di jotal nuyoo maam Malick Sy doomu xalif général bi yàlla dafa dogal ñu xamante bokk fi yëngutu moom mu nekk ci di def rafet moom itam amul lu muy woote moom maan Malick ci wàllu boppam te waxul ay njabootam ñu dem fa kenn mënu leen ca loolu nag sëriñ bi dañ leen ko war a seedeel ngeen xam ko rek Mbàkke ñu ngi balaax nag mu ngi bëgg a guddal te xayral kalaami maa xala wa dal waa sëriñ bi nee na xanaa mu delloo nuyoo rek sëriñ bi nee na dégg nanu wax ji bu baax nee na ginnaaw bu nu gisee jëfin wu rafet wi nee na rawatina kàddu yi jóge ci sëriñ Mansour nee na jóge ci njabootam gii ñoom ñi njaboot gi nee na ñu ñëw fii jottali kàddu yi nga xam ni moo jóge ci Serigne Mansour si nee na yëg nañu ko bu baax a baax sariñ bi nee na ñoo ngi cant itam cant gu rëy Nena sunu doom jii fi nekk nee rafet lu nanu taxawaayam rafet lu taxawaayam ak bis bu mu waxee ni bisu maam jaara la bi nee na moo taxoon li jóg di jafe-jafe nee na ma dogu ci ñëw ci bis bi sëriñ Muntaxa nee na bi ma ñëwee nag daje feek njabootu sëriñ Mansour yii fi ñëw nee na loola sant nañ ci bu baax a baax nag nee na yoon wi dañu ko gàttaloon lool bëggoon rek ñëw gis sëriñ Mbàkke màddina rek nee na ba njaboot gi fi nekk xam ni ñoom it ñu ni nun daal ñëw nañu fi rek ngir bëgg leen a won ni sëriñ Mbàkke mii am nañu ci moom yaakaar sëriñ bi nee na rafetlu nanu it taxawaayam bu baax a baax neena na dégg nañu it ni nit ñi àndeek moom nee na loolu moo taxaw rek ma doog woon ci ñëw fekk ko fi moom sëriñ Mbacke Madina fekk fi it nag njabootu maam jaara buso yim fi nekkal Sëriñ Muntaxa nee na loolu rek moom ma yëkkati woon ñëw ba gis leen rek daldi di ko nag sëriñ bi nee na waaye nag yaakaar ji ma fi amoon nee na lu bari dolliku na ci nee na ndax sunu bokk yu baax yii di njabootu Cheikh Modou Mansour ma daj feeg ñoom nee na sëriñ Mansour yebal leen fi ñu ñëw fi ñëwin wu rafet wii ñu fi ñëw taxaw nag taxawaayu bu rafet bii ñu fi def jottali kàddu yu bax yu rafet yi ñu fi jotli serigne bi neena lolu kat alhamdullilah rabbil alamin neena lolu kan sunu yaakar dolli ko na bu bax dolli ko na ci serigne Mbàkke bu bax nak dolli ko ci njabootu maam jaara bu sa gii ñu àndal liggéey bi Mbàkke nee na boo fi nekkoon nekkin wi nekkul nekkin wu rafet kon kat doo fi xewle bay woote ba ma di fi dajeeg sama mbokk yu baax yii kon man bu ma taxan a jóg rek lu ma taxan a jóg rek nee na dolli ko naa ci yaakaar bu baax a baax gën naa ci am xel mu dalit nee na sama xol sedd na ci guy itam kon daal li ma tax na jóg rek mel na ni moom fekk naa ko fi fekk fiit loo xam ni kowe na sama njort noonu rek la demee Mbàkke sëriñ bi nee na noo ngi jéggalu bu baax noo ngi siyaare bu baax nee nañu ni jot leen siyaare ba nag kilifa ga ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di dolli ko nag bu baax a baax ci jëfam jure ji mu jëf ne lii sëñ bi wax ni diggam ak sëriñ Moustapha nee na noonu rekk la deme de nee na sëriñ Moustapha joxoon na ko cëram nee na ànd na fa sax nee na mu tax koo jóg nee na kooku ku ko ñoroon la nee na ku mu yittewoo woon la ku mu defoon kilifa la loolu xam nañu ko ci moom bu baax loolu nag sëriñ bi nee na loolu lañ fi bàyyee insha allahu ne daan ko ko xamal bu baax a baax daan ko ko sàmmal bu baax a baax loolee nekk diggante mag sëriñ Modou sëriñ Moustapha ci jëf ju rafet nee na loolu kat gën na ko feeñal gannaawam ci jataay bi rek na nu ko ci bu baax a baax kon sëriñ bi nee na am nañ ci cant gu rëy ne dolli ko nanu ci yaakaar yi itam nag kon bu ngeen delloo na ngeen nu seereel sëriñ ba bu baax na ngeen ko siyaareel santal na ko bu baax a baax ci taxawaayam ci lislaam ji ci réew mi sëriñ bi nee na xam nañu taxawaayu sëriñ Mansour bu baax a baax a baax kon nag noo ngi koy gën a dalaleem xel nag di ko ñaanal itam nag sunu boroom bàyyi ko fi. ca na mu ko bëgge nag ba mu mën a àggale liggéeyam ci lislaam bi yëpp yéeneem ci lislaam bi yëpp sëriñ bi ne ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax nee na dëgg la nee nag ak ñaanam lanu jëkk a dóor woo koo sañ ñaanal nag waaye kon nag jataay bi dafa gàtt ndax dama ne woon kat damay yegg rek gis sëñ Mbàkke daal di wuññiku waaye fa tabaarakallaahu ginnaaw daje naa fi ak mel na ne aaju yëpp faaju na ndokk yàlla nee na nga nu santal sëriñ bi bu baax siyaaral na ko bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf loolu mooy kat yi bàyyi ko ci sëriñ Mountakha Mbacké bi mu yëgsee jàkkaarloog njabootu sëriñ Mansour si fa tabarakallahu taxawaay ba rafet na lool léegi nag dañuy déglu ndigal ba ci kanam